googee am nañu ci rëcc bëri ay nit ñoo xam ne faatu nañ ci yéen a kaay gii di 24 heures nee na benn semaine rek lu toll si ñaar téeméeri nit faatu nañ ci ci géej gi yéen a kaay gii di Les Échos nee na alxamis bi nga xamante ni moom la ñu génn am na ci ak gaal goo xam ne juróom-ñetti fukki nit la defoon gaal googee dafa tëmm ci ndox mi lu toll ci fanweer ak juróom-ñaar sauvé nañ leen ñi si des ñëpp ba léegi nii kenn gisagu leen état bu Sénégal ba léegi waxuñu dëgg askan wi ci ñi nga xam ne ñoo faatu ci ndox mi ndax gaal gi nga xam ne moo explosé woon te defoon lu toll si ñaari téeméer ci ay nit toll ci téeméer ak ñeen fukk ci ay nit ñàkk nañ ba seen bakkan organisation internationale pour la migration moo ko xamle yéen a kaay gi de la Tribune nee na njiitu réew mi di Macky Sall daat nay menacé dànkaafu nañ ñi nga xam ne ñooy jël ndaw ñi di leen di dugal ci gaal yi di leen di yóbbu bitim réew nee na dinañu mobiliser ay moyens yu dëgër yoo xam ne benn gaal dootu génnati ci réew mi journal bi moom Macky Sall daat nay wax na dina am benn assistance boo xam ne danañu ko def ci njaboot yi nga xamante ni seeni doom des nañu ci ndox mi ma ci yéen a kaay gi de ñu xamal lañu accident bu metti am na bërki dee moo njaaye lu toll ci fukk ak juróom benn ci ay nit ñàkk ci seen bakkana am na si juróomi nit ñoo xam ne gaañu-gaañu yu métte métte la ñu amee journal bi nee na àllub kaañ la accident bi amee benn camion frigorique moo waral lu ni mel maanaam camion yooyu nga xamante ni ñooy def jën yi journal bi nee na bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoo rëcc sa accident boobe nettali nañu waa gendarmerie na leen chauffeur bi nga xam ne moo yoroon camion bi da doon double ñetti oto ci bi nga xam ne moo nekk ci àllub kaañ journal bi nee na soo moytuwulee danañu ko teg ay daan yu métte métte yéen a kaay gi di wax ci gàmmu geek Serigne Mbaye Sy Mansour mi nga xam ne alerte na dànkaafu na ñi nga xam ne ñooy waa France rawatina Emmanuel Macron ci lu jëm ci mbirum caricature gi Serigne Mbaye Sy Mansour wax na ci institut Jeanne d'Arc gi nga xam ne ñooy tere xal yi di muuru wax na ci wàllum góor jigéen gi nga xam ne nee na ma ngi melu tulleeg man la ci réew mi saa sunu xëyee mu fi gën di bëri moom Serigne Mbaye Sy Mansour wax ne na France dafa daal di mboolem réew yi nga xam ne ay réewu julli lañ yéen a kaay gi de la turbine Serigne Mbaye Sy nee na wàllum góor jigéen gi saa sunu xëyee ma ngi gën di bëri ci Sénégal te war nañu see war ñu see jokk kàddu yi nga xam ne Emmanuel Macron yëkkati na ko sëriñ bi nee na kenn mënu ko nangu te duñu ko nangu yéen kaay gii di Vox Populi mu ñu xamal lan ñu sëriñ Mbaye Sy Mansour lu na bu baax a baax drogue bi nga xam ne mooy jàbba jonge ci réewum Sénégal ak wàllum ger gi ak wàllum corruption bi yéen kaay gii di critique nee na sëriñ Moustapha Sy yàq na gàmmu Tiwaawoon gi yéen kaay gii di Les Échos mu ñu xamal lan ñu sëriñ Moustapha Sy ce genre de course dafa tuumaale sëriñ Mbaye Sy Mansour xalif général di Tijaan dem ca Palmarin gis fa am njabarkat maanaam ab féticheur ngir nag mu daal di koy rayal mbooleem njabootug Serigne Babacar gi journal ne génn àdduna ak Pape Malick Sy loxob ci ba pare Serigne Mbaye Sy Mansour moom ci njàppandalu Macky Sall ak Marème Faye Sall moo tax a confisquer li nga xam ne mooy xilaafa gi ndax Serigne Abdou Aziz Sy xam ne moo fi magoon Serigne biir journal bi di Les Échos Serigne ñu bari xam ne dañoo bëggoon a saboote li nga xam ne mooy gàmmu gi waaye nag buñ saboote woon xam nañ ne réew mi dafay ne jëmoon na ci wàllu mystique ñun fagu woon nañ si ba pare journal bii di Vox Populi mu ñu xamal ñu en tout cas li am ba de Serigne Moustapha Sy tuumaal ne xalif général des Tidianes ne moo marabouté Serigne Pape Malick Sy yéen kaay gi daan nañ xëy ci remaniement ministériel bi nga xam ne ba léegi ni kenn xamul mbir ma nan lay demee Direct News nee na ñun am na lenn loo xam ne xam nañ ko si ndax Omar Sarr dina nekk ministre Madické Niang dina nekk ministre Malick Gakou nekk ministre dina am benn élément Idrissa Seck bokk ci gouvernement bi Mamadou Diop Decroix dañu koy dugale Issa Sall dañu koy dugal gouvernement bi Modou fa Fada ñu koy dugal Biram Fay bu APR ci gouvernement bi lay bokk dina am benn jege ñaale bi Aminata Mbengue Ndiaye Khalifa Sall gars yi ñoo ngi négocier ak moom noppi gi Macky Sall noppi nag jaaxal nañu bare bare lay seen kaay mu ñu xamal lan ñu remaniement bi Macky Sall dafa verrouillé lépp maanaam tëj lépp la def bàyyi askan wi nag kenn ku nekk di wax li la neex jamono ji askan wi kii ma ngi wax kii moo dugg ci gouvernement bi kaa mooy ci gouvernement bi journal bi nee na Macky Sall wax na ak ministre yi nee na leen defar leen seeni document su ko defee ngeen waajal passation de service avant lundi journal bi nee na ajjuma férié la waaye bëri na ay ministre yoo xam ne démb liggéey nañ ko 72 heures yoo xam ne ab gouvernement amul Macky Sall ba neexul waaye nag mu ngi ñi nga xam ne ñooy ministres yi enquête yéen a kaay nee na ci calcul politique la nekk ak diversion ndax Macky Sall wàllum émigration gi taxul nag mu yeexal li nga xam ne mooy remaniement bi Alioune Ndiaye di ab journaliste nee na Macky Sall def ndax a monument yéen a kaay gii de Les Échos nee na en tout cas coalition bëri lool ci gouvernement bi stade yéen a kaay nee na match bu rëy tey jii am na diggante Manchester United ak Arsenal Cristiano Ronaldo mi nga xam ne dafa corona woon virus corona virus ba dañ na Neymar dafa blessé dina toog lu yàgg du bokk ci terrain bi yéen a kaay gi nee na Edouard Mendy ak Alfred Gomis ñaari góol yi nga xam ne ay doomu réewum Sénégal lañ ñoo ngi toj Europe yéen a kaay gi di sunu làmb nee na lu toll si ñaar fukk ak juróom benn at yoo xam ne Alioune Sarr maanaam jiite na kër gi